Goal 50 mu doon loo xamante ni euh, dañuy publier 50 jours yi gën a xarañ ci euh, euh, atu at bi ñu génn waaye nag ginnaaw loole ñoom fësal nañ liste cinquante jours yu gën a xarañ ci monde bi ci année bii rek ñu ñuy waaj a génn muy atub 2021 appelé Goal 50 waaye nag li ci gën li ci gën fës rek wala liñ ci gën a nemmeeku benn doomu gaynde njaay rek maanaam benn jouru sénégalais rek moo bokk ci liste boobu naam sax ñu ngi doon xaar ku si mel ni Sadio Mané wala Idrissa Gana wala sax kii di Ismaïla Sarr jamono ji ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan pour bokk waxuma la sax si góol 50 waaye si jour yu gën a xarañ si monde bi waaye nag kii di Edouard Mendy moom rek dafa mel ni moom lañ tànn si jour Sénégal yi nga xamante ni ñoo bokk si liste bu ñuy publier si góol 50 boobee rek waaye sax li si gën a fës nekkul dara li dul 35 33 jours européens rek ñoo bokk si liste boobu. waaye nag si euh, Amérique continent bu Amérique euh, tànn nañ fa huit jours bu Afrique rek ñu tànn fi cinq jours cinq jours africain yooyee rek ñu gën see gis ki nga xamante ni mooy Edouard Mendy di góor bu euh, Chelsea moom mi nga xamante ni saison bii ñu génn rek dafa jël li nga xamante ni mooy Ligue des Champions bokk nag si jours yu gën xarañ si. ci Europe moom Edouard Mendy bu ñu moyulee rek dina jël li nga xamante ni mooy ballon d'or africain na am sax bokkul si ballon d'or européen bii nii waaye nag bokk na si liste yi nga xamante ni euh, mooy euh, liste bu tuddee euh, goal cinquante maanaam cinquante joueurs yi nga xamante ni ñoo gën a fës gën a ràññeeku ñoo gën a xarañ si monde bi moom Edouard Mendy rek mooy benn rek bu si bokkul waaye nag laaj bi rek mooy kii di nga xamante ni di wuyoo si turu Sadio Mané moom lu tax bokkul si liste joueurs yooyu wala sax ki nga xamante ni mooy Ismaïla Sarr nekk foofee ca Watford lu tax bokkul ci liste sore yooyu wala ki nga xamante ni mooy Idrissa Gana Gueye moom itam lu tax bokkul ci liste joueur yooyu loolu rek mooy euh, laaj bi daa mel ni nag seen sélection boobu rek dafa doy waar ndaxte doomu gaynde jaay boobee rek daa mel ni ab neexal la ginnaaw bañ koo jàppee si li nga xamante ni mooy liste euh, bi ballon door euh, européen bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal